fo jàpp ñaaw injira mbay dem mbaak xooya mbay dem ba latti mbay dem mbaak yàbbi mbay dem am nga ari suko jógal burunduuf ku mba jigéen songaan ngay nga dem ba ndey naa li jéen nga dem ba ndey nag maa jigéen kay waaw samlee jey de ngaal njooloo njoomoo njoor ay njogan jigéen kay mu jël sama njaga saar may ko joor joor Aziz joor joor yi ma jolee baayu iliman joor moo jur rakki joor iliman joor binte joor iliman joor seleba joor iliman joor iliman joor aw faal awa faali siinu bu jobi ngone mbeng yaay jël sëñ Dakar fooy jaar ba ñaaw Aziz ko dijële nak mbaaw gan Yaasin min wajirde mbani maw sama mbiya tumay kodde moye ɓuuru mbawu ken kodde ɓuuru mbawu dakkabu jellinmi pinde wasrowa mbaw amma kumba ma kumba mo taye ɓay ama kumba yicci mbaw sen yaare leddi ha ni gawramel bokk neen bay dem ba sikki sama niyal sama dem ba sikki Mariam Ndoye may ko Fatoumata Yam Ndoye moom ci Aïssatou Seck ndeysaan ñu jël sa maam Aïssatou Seck may ko Khalifa Babacar Sy moom ci benn doom ay Sëriñ Mansour Aziz xalif général bi suuf si yeetu am bunkam ko soxna Njaay ngu Njaay bépp xujjata mu nii nga war a mel yàq jom def lu ñaaw ndeysaan Seynabou waaw waaw Seynabou sa yaay nii nga war a mel yàq jom def li nga ay da mbay moo day sa maam yaayu miis mbay mi ngi jooy te ma pii ku nu jirim yaa ngi jooy ba yaa ngi jooy ay Aziz lii nga mën a mel yàq singari dey ngoonde ndema fa joomi dey ngoonde mbegiyeje sinde kar foye jarba ñaaw asitanal mu yakk loolu seyma yiidi baawaan ni nga mën a mel yàkk ju ma def ñaaw ah tey nag dama kontaan dix mille personnes yi am cinq ñu tànn la ci yow da sant yàlla waaye da ngay gën xoolaat sa taxawaay. loo jàpp ne moo def la différence ah, par rapport aux autres parce que ñi yeewoo HLM bëri na ñi fi def dara bëri na lan nga jàppale pour yow que ne moo def la différence dañu tabb la. seen parce que.

bu doon laaj Aziz lan mooy objectif am fii ci HLM lan mooy ay ambition fii ci HLM perspective yi lan lay doon. waaw li olof naan boo xeebee fi nga dëkk foo dem ñu xeeb la man HLM laa damay yaakaar ne lépp lu baax lu ne balaa moo jiitu ci benn gox HLM lay jege objectif bi ma am mooy li ñu waxoon ci départ bi comme li nga tudd équipe bi man maa nekk au devant de la scène. mais il y plus de trente personnes, don comité directeur, dont bureau ASHLM, ñooñu awma seen fay tey bu ñuy sargal man la ñuy sargal waaye liñ ma sargalee ñoom la parce que première nomination bi ñu ma def ci gox bi ma dëkk mooy président ASHLM mais président bi bi ma ciy dugg dama ne mënuma xamuma yéen a mën wax leen li ngeen bëgg rek ma ne mu di ko indi liggéey tey bu ñuy félicité bu ñuy sagal man la ñuy sagal mais ñoom am nañ ci part de responsabilité am na ci biir ñëpp nag képp ku ci ASHM nga nekkoon ci nga nekk ci ku ne am nga sa fay ci équipe bi rawatina ñi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi fi ñooñu amu na say fay mérite bi di euh, euh, décoration bi ñoom ñoo moom mérite alors euh, dernière question avant ma passe sama conseil contraire yi rek pour ñu àddu ci moi, il euh, y, message quand même qu'il faudrait adresser à la royukaay war a doon euh, ci ki nga xam ne euh, mu ji teg bëtam lan mooy doon message bi à la jeunesse pour fi nga taxaw tey tànk fi yoon bi nga jaar ba yegg si fii tey ñu man fa jaar ngir man yegg si lan lay doon message bi waaw HLM nag ñun dañoo am ñu bari amul hmm, boo nekkee bu la yàlla dimbale nga juddoo HLM yaroo HLM màggee HLM euh, sak la ndimbalu yàlla la HLM képp ku baax ku ñuy tudd tey dëkk nga HLM Serigne Touba dëkk na HLM muy Serigne Sidi Moukhtar Chérif Bakhayda Aïdara HLM la dëkk Mbaye Jacques Diop HLM la dëkk surtout maam Cheikh Ibrahima Fall borom daaru Muxti dëkk na HLM Cheikh Modou Kara dëkk na HLM kon fu yàlla dimbali Cheikh Ndigal Fall dëkk na HLM kon fu yàlla dimbali nga juddoo HLM boo góorgóorloo tuuti di nga barkeel ñun nag dañoo am jeunesse boo xam ne jeunesse bi gëm seen bopp HLM lu yomb defar la HLM bu ñu booloo xëjuñu ci kenn loolu laa waxoon ci départ bi HLM dafa am buntu bu ñu nekk tëj ay entrée ay buntu la ñu am kon bu ak ndimbalu autorité yi parce que Sénégal gis nañu am na lu fi manqué am na it lu fi am li fi am ci jeunes yi lañ gisee dañuy lancer un appel ci njiitu réew ci ministre de la jeunesse ak képp koo xam ni defkatu lu baax na nga gestu jeunesse bi rawatina jeunesse HLM loolu message bu may lancé la waaye di gën li nga ma posé question mooy ku bëgg dox ni man man nit laa comme nit ñëpp am ay référence dama am ay référence fi ay mag yoo xam dañ fi nekk di def lu baax ay mag yoo xam dañ fi nekk di tabax jàkka dañu xool ñu baax ñi ku ci mel ne Barxam Diop mhm. référence la Barxam Diop jeune la comme man suma mag la mais jeune la même génération la mais daf fi nekk di tabax jàkka di jënd ay corbillard di jënd ay ambulance ñun ay rakam loolu la ñuy xool hmm. ak keneen ak keneen ak keneen li mu fi def ak Cheikh mbay ak keneen ak keneen Moustapha Diop Moustapha Diop maire de Dakar mooy premier magistrat wu dëkk ñu moom jeune la ñun jeune lañu kon dëkk bi ñaari jeunes yor force yu gën a sensible bu ñu góorgóorloo dinañu def lu bare bari bari parce que am nañu avenir bi suñu kanam leer na bëggoon rek delloo njukkal waa HLM parce que li ma doon tey ginnaaw yàlla ak yunt yàlla Muhammad ak sama ñaanu waajur sama ñaanu waajur bu góor ak samay ñaanu waajur yu jigéen. benn bu jigéen ngeen gis mu wax léegi mooy suma yaay muy maam Siga Diop am naa beneen boo xam ne ñibbi na yomal xiyaam ndax moo ma yar muy Faat Bintu Njaay dama am ñaan boobu waaw di leen delloo njukkal ñoom HLM tey samay comme ni ko sama yaay waxee dañ maa dama judd mais ci waa gox bi niñ ma téewee li ma doon nii tey waa gox bee ma ko def kon HLM aw ma seen fay HLM 1 cité des eaux ba Colobane aw ma seen fay rawatina fii ngeen taxaw rawatina fii ngeen taxaw tey ginnaaw yàlla ak yonent bi lépp. bu baax soxlawul ma koy présenté kenn parce buy bëre bu daanee nit ñi dañuy ñëw fii fekk maa xam ak moom muy koo ñëpp ñëpp ñaanalal ma sama xarit bii di Boy Niang numéro 2. xam nga xam nga xam nga mbër dafa xaw a liggéeyu mbër dafa xaw a dafa xaw a dama leen di seedeel gi billaahi wallaahi taalaahi kii fépp fu muy dugg dugal na ma fa tey day jàpp sama loxo ne nit balaa nga may ñaanal ñaanalal sama xarit bi ndax dafa nekk ci yoon dama bëgg ngeen ñaanalal ma ko ngir yàlla jëmi jëmt bi nekk roi des arènes moo ñaanal jor si si ba jingira mbay dem mbaak xooya mbay dem ba latti mbay dem mbaak yàbbi mbay dem am nga aris ko jógal burunduuf kumba jigéen songaan ngay nga dem ba ndey naa li jéen nga dem ba ndey xooy joge nag maa jigéen tey waaw sam lee jéem mi de ngaal njooloo njoomoo njoor ay njogan jigéen tey waaw sam lee jéem mi de ngaal mi jël sama njaga saar ko jorjol asis jorjol ima jole ɓaayum iliman jol moƴo rakki jol iliman jol binte jol iliman jol sineba jol iliman jol iliman joli aw faal awa faali sinomu joɓi goni mbinga yay jal sañ dakar foye jarɓe ñaaw asis ko dijile nak mbaawo gandi yasin amma ko mbaangi kamɗen wajiren nde mbaani maaw sama maam Yaatu Mbay Kodde mooy buuru mbaawu gën Kodde buuru mbaawu ndànk bu jël indi pind waasu waa mbaaw ama ma kumba ma tayee bay ama kumba yi ci mbaaw seen yaar leen di xajaar leen ni